وجعلنا الليل والنهار وابتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب dañ fi ñëwoon tey visite ci ndigalu président pour ziyaare sëriñ loolu moo doon sababu yoon bi président nag ñu di bu fa demee da ngeen di xool li gën a jàmp ngeen ngeen boole ko ci visite bi ndax euh, Touba la fay liggéey yitteel na ma lool maa ngi jot ay rapport gouverneur ak may wax mais bu premier ministre demee ci dëkk ba bëgg naa mu xoolal ma la fa gën a jàmp bi ma waxtaanee ak mu xamal ma ni lépp lu jëm ci assainissement jëm ci mbënd mi loolu yitte dëkk bi la ba nga xamee ni it eh, ñu ngi jëm ci nawet yàlla dafa dogal eh, màggal gi ren di dal ci biir nawet bi ñu xool chantier yëpp am nañ yaakaar ni it bu jeexul yi dina wàññeeku nañ ci yaakaar yoo xam ni gouvernement bi jël na ko ci pour chantier yi mën a gaaw ndax léegi dañuy ñu ngi séntu na ndox mu bari wax nañu sëriñ bi nañu ñaanal Sénégal am jàmm mu may ñu nawet bu barkeel bi may waxtaan ak sëriñ bi xam naa ni li ñu seeti neex na ko lool xam nañ lool waaye ñëw ba Touba te gisoo université bi xam naa ni dina doon loo ne mën na koo jaaxal ndax moo tax eh, ay jege naa wax nañu ko wax nañ ma ko waaye moom ci boppam wax na ma ko ma ko ah sëñ Mbàkke de président moom loo bëgg amu ci sago kon ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom it dañuy jéem a topp ay say tànk rek euh, ni nga ko bëggee daal lu mu xat-xat dinañ ñëw ci université bi xool liggéey bu bu yéeme bu mucc ay bu bi mu fiy di ñaan yàlla mu mottali ko ci jàmm ak salaam am na nag loo xam ni président waxoon na ko ci bi mu ñëwee muy ci wàllu assainissement mën nga wax dara waaye liggéey bi bari demee noo xamante ni nit ñi mën nañ ko bañ xool waaye cëru gouvernement moom surtout lu jëm ci Touba jëm ci waa kër sëñ Touba moom buñ ko digal rek defal donc allah danañ ci taxaw ni ko président bu jël ni ko sëriñ bi yaakaaree ndax yàlla moo tax loolu yëpp ñu lay sant bu baax di lu sa taxawaay ci université bi di lañu ci encouragé lu ñu mën li ngay defal moom askan yëpp nga koy defal mën nañu wax ni li ngay defal julli yëpp nga koy defal kon yàlla na la yàlla doon li dëgër confiance bi nga xam ne sëñ Muntaxa am na ko ci yow bu dénk la lii nga xam ne mën nañu wax ni ci liggéey li ci li ñu ci gën a bëgg lii ci la bokk bu lii la gën a bëgg kon yàlla na ci yàlla defal nga ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf aoudu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngi lay nuyu lu bari yow ak mbooloo mi nga àndal di la jàmm fii ci daara Cheikh Ahmadul ñëw nga ñëw nag ci sa kër ñëw ci daara moo tax bi nga ñëwee ñu teeroo la alquranul karim ndax barab boo fa wàccee la am lañ lay ganale di la xamal it ñi nga xam ne ñoo ànd ak man ci liggéey bi ñoo fi ñëw neggandiku la ngir gàttandu la dalal la jàmm ci sa kër man damaa ma ci Serigne Fallou Mbacké moom mooy jiite naafila ci jumaay Touba moo jiite itam daare alxuraan ji fii ci université bi sëriñ Mbacké Abdourahman moom itam di boroom xam-xam moo jiite njàngum xam-xam mi ñuy wax majalis fii ci université bi wala ci daara ji Euh, Serigne Mountakha Diatara moom itam moo jiite li ñuy tuddee école spéciale école moderne wala école de Touba lañ koy tuddee léegi danaa ci ñëwaat Serigne bi dafa bëgg a nos organisé mboolem njàngum école yi nekk ci Touba mu am lu tuddee lu ñu tuddee sax inspectorat boo xam ne day saytu mboolem école yi fi nekk programme bi itam ñu jàng programme éducation nationale waaye ñu dugal ci nag njàngum Touba njàngum xam-xam njàngum diine mu dëppoo ak ni ko Serigne bi jàngalee. loolu nag dañ ko dañ ko ànd ak ak ministère de l'éducation nationale. danañ ci ñëwaat docteur Abdou Lahad Sané moom itam moo jiite euh, département étude islamique ci UFR étude islamique ak langue arabe docteur Abdou Lahad Lo moom ñoom ñaar ñoo fa bokk nekk waaye moom dafa dafa dafa dafa génn dafa xaw a dem bi ngeen di ñëw professeur Moussa Badiane professeur agrégé moom itam moo jiite euh, science euh, institut supérieur des sciences et métiers de la santé bi nga xam ne ci kanam mooy doon UFR santé ànd ak docteur Balla Mboub ak sa Diallo nga xam na moo doon chef de service administratif ci université Gaston Berger moom itam bokk ci ñu ñu jàppale ci liggéey bi fii euh, soxna Nafisatou Bousso moom moo jiite daare jigéen ñi ndax daare alxuraan ji dafa am ñaari xaaj góor ñi ak jigéen ñi moom moo jiite njàng de daare jigéen ñi doon itam daara ju am solo mbooloo mu bari ci ay soxna ay ay tuutànk yu jigéen ñi ngi fi waaye ñi leen di jàngal ay jigéen lay ñi nga xam ne ñoo yor surveillance baak éducation baak yëpp ay jigéen lañ ba ci sécurité bi ñu ko yor ay soxna lañ gis ngeen ay soxna yu taxaw foofu ci bunt bi bi ngeen di yow ñu lay dalal ci sa kër xam nañ ni nga demee ak Touba xam nañ ni nga demee ak sëriñ bi di la yóbbante nuyoo ak cant ci président la république ndax xam nañ diggante ba ak sëriñ bi xam nañ ne boo fi ñëwee ci ndigalam nga ñëw gannaaw jógee nga ci sëriñ ba nag kon ñun lay wax rek ñun suñ wax mooy li aju ci jàngukaay bi ci la xamal ne waxtu wi gàtt na xat na bëgg ngaa kii waaye ñu tënkal la rek ne bi ñu ubbee ak léegi njàng mi tàmbali nañ muy daara alxuraan ji fii ne juróom-ñetti téeméeri gone ñu ngi fi ñoo xam ne fi lañu dëkk ñu leen di toggal waajal ko bu baax nag bés bu set dañu am menu boo xam ne tey lii la togg fii lañu ñu togg ay spécialiste ñoo ko yor wutal leen sax ay ay ay ay ñoo xam ne pâtissier lañ nga xam ne mburu mi ñu lekk sax maa ngi koy wax sëñ Cheikh léegi ne ko dañ koy enrichir tey ñu def ci nen suba ñu def ci fromage ngir daal dund bi war a am ni war a demee wut na ñu leen di fóotal ñu leen di toggal ñu leen di yar restaurant yaa ngi fi ñett ba ñeent nga xam ne tumuranke bi dara jàngalekat yi nag ñu tànn ñi gën a xarañ gën a mën alxuraan ci sëriñ lu mu nga xam ne def naa da ngeen déglu ay naafilaam ak lu mel ne jumaay Ndakaar yi ñu mel noonu ñoo yor dari alxuraan ji di ko fi jàngale ñi fi jàng xam-xam nga xam ne dañoo mokkaloon itam te ñëw fii ñu leen jàngal xam-xamu diine sëriñ Mbàkke Abdourahmane mii moo ko jiite moom itam tabaarkàlla ñu ngi jàng njàng mu baax moo xam ne njàngum cosaan mu njëkk ba waaye dañ koy tollaleeg jamono nag mu doon formation boo xam ne dañu ay diplôme yeneen matières yi nga xam daawuñu ko jàng itam bu njëkk ñoom dañ ko fi jàng nga xam ne ëllëg mën nañoo jóge ci njàngum diine moomu jaar ci li ñu tuddee passerelle dem jàngiwaat meneen métier moo xam ne bëgg nañ ko jàng naka noonu ci njàng mu kawe mi wax naa ko léegi science infirm science euh, euh, infirmière institut supérieur des sciences et de la santé docteur Moussa Badiane mi ngi fi UFR étude islamique ak langue moom itam docteur Abdoulahad Sané moo leen fi teewal mu doon ñoo xam ne itam dañuy jàng lañ daan jàng ci université yi nekk bitim réew waaye nag yokk ci nag yëfi Sénégal dañuy jàng histoire du Sénégal boo xam ne noo koy bindal suñu bopp di jàng taarixu Sénégal lu démb mag ña aada yu baax yi cosaan yi fi amoon nga xam ne l'islam daa ñëw bàyyi noog moom suñu jikko yi suñu valeur yi ñu di ko jàngal xale yi waaye di leen ngir ñu xam diine xam Sénégal xam Afrique xam réew mi waaye mboolem mag ñu baax ñu nekkoon ci Sénégal liggéey bu mag bi nga xam def nañ ko ci lislaam ku ci ne dañoo dem ca kër ga laajte fa ñu jox ñu ay téere yoo xam dañ koy indi fii di ko jàngal gone yi nga xam ne buñ noppee danañ xam lañ doon jàng ci bitti waaye danañ xam Sénégal wàllu santé bi moom itam dañuy jàng wàllu médecine ni ñu koy jàng ci université Cheikh Anta Diop barki démb la ñu fi jógee ñu def ak ñoom convention de partenariat démb la fi euh, euh, euh, recteur bu université Ziguinchor ànd ak secrétaire général ba ak mboolem ñoom àndal ci liggéey ñëw fi am fi ñaari fan ñu dalal leen waxtaan ak ñoom ñu présenté ñu université Ziguinchor Assane Seck ñu présenté leen complexe Cheikh Ahmadoul Khadim fii mu nekk nii ñaari secrétaire généraux yi ñu ngi waajal convention de partenariat bu ñu war a def ak ñoom naka noonu université Gaston Berger fa la professeur Badiane ñoom ñoo jiitu ci ñi ñëw jàppale ñu nga xam daal dañuy fekk li fi nekkoon ci réew mi ci njàng yi fi gën a baax ñu dajale ko tàmbalee foofa nag ñun jëm ci kaw naka noonu am na ay institut yoo xam ne institut de langues et métier du livre moom mooy euh, taxaw taxawaayu passerelle yooyu ma doon wax nit ki mën naa jàng ba diine ba noppi wëlbati ko ne man dama bëgg ne ñu xool matière yi nga xam ne moom la xamutoon wet gi nee woon doole capacité ko ci mu mën a jaar ci passerelle boobu jàng bépp xam boo xam ne bëgg na ko jàng naka noonu vice versa nit ki mën naa jàngoon leneen ba noppi ne man kat damaa gëm ne damaa war a xam diine bu ñëwee foofu lañ koy jaarale ëllëg mu nekk faqih boo xam ne day mekk day mel ni Sëñ Mbàkke Abdourahmane dañoo bëgg daal ki fiy génne ëllëg dana xam diineem dana xamum réewam waaye mépp mépp métier moo xam ne réew mi da ko soxla da koy xam ci xam gum yi ànd ak valeur yi lislaam yi xam ne nag moom la sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale wax ne innama bu'istu li utammima makaribal axlaq bu ko defee ëllëg ak si biir lu réew mi soxla ci nuñ ko war a taxawoo nuñ ko war a sàmmee nuñ ko war a yore ay nit danañ génn fi yoo xam ne dañ mën a yor loolu loolu nag bi mu tàmbalee léegi alhamdulilah rabbil alamin yàggagul waaye ñu ngi ciy jox ay jéego yoo xam ne mën nañoo wax ne alhamdulilah gàttanduk sëriñ bi moo tax mu mel noonu. ñu ko tëralee itam financement bi gis nga ko taalibe yi rek ñoo ànd kenn ku nekk def la man juróom-ñaari bâtiment yi ngay yëpp ñu ngi tuddee opérateur économique yi ñoo sasoo ñoo ko sasoo woon ne sëriñ bi caabi lañ lay jëbal gis nga fi nu toll ci liggéey bi bii ñu nekk ci la bokk gis nga yi nga xam ne ci la des fi la dong yi war a dëkk fi ñuy jànge ak ñi leen di jàngal fi ñuy dëkk restaurant yi itam noonu noonu lañ ko tabaxee ba nga duggee nag ba yegg si loo fi gis rek mooy li nga xam ne moom la taalibe yi diir sëriñ bi benn dërëm jàddu ci dinañ ko rationaliser optimiser ko ba nga xam ne foo ñëw buñ ne fii benn fi def benn lañ fi def da nga naan bu doon ci yoon fukk fii dem noonu lañ ko tabaxee boobu ak léegi état wu Sénégal yi ñu ngi sant président gis nañ ne centre de formation professionnelle bi ñu ngi koy defaral sëriñ bi centre boobu bu noppee ñi génne ci daara alxuraan ji wax ne dañoo bëgg jàng métier dañoo bëgg doon électricien dañoo bëgg doon menuisier dañoo bëgg nag ay technicien ci wàllu luñ soxla dañuy dugg foofa ñu tàggat leen waaye ñi jàngutoon alxuraan sax te bëgg am métier di ay tout tànk mën nañ faa dugg ñu jàngal leen ñi jàngoon ba noppi di liggéey ci seen i atelier bëgg a def li ñuy wax renforcement de capacité wala bëgg xar xaar gën a xarañe seen mën nañ ñoo xam donte benn waxtu wala ñaar waxtu semaine bi nit ñi ñëw ñu di leen tàggat loolu itam dëkk bi yëpp ñoo ko bokk bâtiment bu mag bi ngay gis nag booy dugg si waa xisbu tarqiya foofu tam ñoo koy defal sëriñ mi ñu tudde ko këru xasida yi nga xam ne daanaka mën na ñoo dox ne lu nekk ngi ci biir beneen fondation bi ngay gis nga xam ne day am susol boobu mooy suñu am di xadi faal mi nga xam ne moo miire woon moo miire woon miir bu mag bii ngay gis defoon fi ay bâtiment moom la sëriñ jo sëriñ bi joxaat liggéey boobu mu war a doon këru alquran ndax sëriñ Tuubaa léppam alquran luñ koy liggéeyal alquran mooy tàmbali ba mooy digg ba mooy tànk yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa qablu kunta tabibi anta izzi wa mafxari anta jaahi anta kanzi yaa faxra kulla labibi te alxuraan mooy ndey xam-xam yi mboolem xam-xam yi am njëriñ yépp mi ngi ci biir alxuraan science yi gën a pointu mi ngi ci biir alxuraan maa faratna fil kitaabi min shay découverte scientifique buñ gis bu nekk ñun julli di nag ñooy soog wax ne fii la ko alxuraan waxoon waaye ñun ñoo waroon na jiitu di doxal ñuy topp ci ñun di xool ndax alxuraan bàyyiwul dara kon fii daaree alxuraan la daaree cheikhul xadim la ji nga xam ne bu ñu ko waxee mooy daaree yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ Tuubaa nee na sama lépp mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maa lasi qafuhu shughli wa xaajaati maanaam sama lépp sama yitte ak sama bëgg-bëgg lépp mooy topp tànk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeñtu xeñtu nag mooy topp tànk tànk baa ngi tànk baa ngi ba ne mi ngi nii